xaw damay bëgg waru waaru li lan la dégg ngeen Farba Ngom li mu wax Aïssatou fal man Farba mom euh, béttu mako wa waa wax dëgg yalla bu dee yalla dëgg rek la bëgg Farba mom am nga nan la mom mais Aïssatou Diop Fall ngal ngalam ju ju metti ji mais euh ma ci bëgg leral moy ay Aïssatou Diop fal ndax maanaam mom amna jëkkeur wa li wala déet mais li manam li bu len deg rek wax di mais dafa don lo xamne dafa graw torop torop torop torop torop torop Jigen juy wax ak yow pare nga nan ko yow man ak yow faawu ñu tok faawu ñu tok mu nan la bo ñewé dama lay jootal astaghfirullah té lool na ngeen xam ne <laughs> ay waji ji Ngom ya bon ay waji ji Ngom ya bon ay waji ji Ngom ya bon de <laughs> as a Giovanni, dia dia dia kan dia kan mana mana jurnal, dia kan mana mana jurnal. Kan? Parce que mam tia Eurofal. Gis nga ñi ni ngeen di gis ni ñuy jité gaay ni manam nek ci kaw di yëngal. Ku leen Par ma ngom señ bi. Ara nga ne na ko bo ñëwé ma jural la. Subhanallah gaza. Shat tat Oh. oh oh non Farba Ngom mais Farba moom naan télé sax moom man mais Aïssatou Diop Fall ngal-ngalam ju metti gii ak waxam yu waye di te lii nag teel na xel tey goo xel goo xamante si nii maanaam comme yëmut ci wax ji nii quoi comme day am fa après fu mu lay yóbbu ndax daana kii wala après kii na mais lii nii moom ñëmewoo koo wax nit ko siqalu dara dara dara dara daanaka ay daanay juree ne ay waay ji Farba Ngom yaay nit ku bon ay waay ji Farba yaa bon <laughs>